c'est que tant qu'il parle de Ousmane il continue, il mais les gens vont commenter et puis ils vont parler de lui man je je essayer de ne plus parler de tes tweets mm. mais quand même euh, dimbali ñu si ah dinaa ko lire sa problème boobu nag la mën a am waaw man nag moom yàlla daf ma dimbale ba lépp loo a ne bépp réseau boo xam ne dafa connecté wu ci waajooju man dama ko déconnecté. ah man day man moom man moom wax dëgg fa yàlla lu ma xam ci moom rek. damay dox nii ba dégg ko wala en fait c'est un gars je m'excuse du terme il m'intéresse pas ce qu'il fait ne m'intéresse pas sa posture ne m'intéresse pas parce que nit da ngay jantal meen. am na benn phrase boo waxoon ngi toj internet bi ne lan. xam nga ah man xam nga lu ma gëm. loo ko waxoon Bougane Gueye Dany mu internet bi de nañ ko de. il dérange. nga ne ko il dérange personne. ku muy déranger. ma jambal na du xam na ne déranger wut kenn. ma jambal non non non ma jàmbal wax dëgg fa yàlla ma jàmbal man sérieusement je ne parlerai pas de lui parce que ma jàmbal tout ce qu'il fait il m'intéresse pas parce que man nit da ngay gentleman Alioune bu ma nekkee ci yow. Hmm? pendant trois ans. may wax ci yow saa yu ma xëyee gis yàlla di la yokk saa yu ma xëyee di la gis yàlla di la yokk may continuer di la ŋàññ yàlla di la yokk ma lay ŋàññ yàlla di la yokk du ma ñëw ba ci Aliou Top ne la Aliou Top doo ma wax sa secret li tax yàlla di la yokk doo ma ko wax mais si tu es intelligent sax nga jël quelque part waaw quelque temps nga def bi xool ba xam waaw wax nga wax lu baax xool ndax yàlla du la yokk waaw ah? mais voilà quelqu'un boo xam ne depuis bu Ousmane Sonko nekkee ci paysage politique bi da koy lu nekk la koy wax te saa yu xëyee muy yokk saa yu xëyee muy yokk gis nga suñu borom moo ne dafa am si gaañ yi ñu nga xam ne moom moo leen di tànnal boppam aral leen boppam ah loolu dafa am de kenn mënul si ñoom dara mais grand bi dafa def vraiment son temps créé nga sa journal bu nga xam ne def na liggéeyam hmm. et gis nga tey les jeunes journalistes dañu bëgg ay modèles yu ñuy roy ah Ah, parce que maa ngi gis tey benn journal bu def ay journalistes yu bëri di wan nu ñuy. xam nga ñuy jógee foofu di dem ci politique. Ah mais gis nga dans dans. c'est-à-dire top. Euh, Pape Ils sont nombreux. Mhm. Mais gis nga le journaliste il doit jouer son rôle pour le développement de son pays. Tout à fait. C'est pas forcément da nga war a nekk dans l'affaire politique pour mën a servir ce pays. Mm -hmm. Et boo defee sa temps ba noppi mais ce qu'il faudra faire mooy dem retirer wu encadrer les gens man je pense que ni posture boobu la war a nekk fi mu toll nii. il a fait son temps. Mm. et les jeunes ont besoin de modèles te modèles yu nga xamante ni da nga leen doon suivre ñu neexoon ñu dem benn moment rek mu am benn cassure rupture totale. bu nga xamante ni yow mi ko doon suivre da ngay wax mais sa waay man waa ji fan la jaar. Mhm. après dootoo amati repère. mais yaa ngi yàq. man de ci ci vraiment. ci vraiment je suis désolé de voir parfois. yenn affaire yu nga xamante ni quand je le vois ci ay nit yu nga xamante ni parfois da nga doon am estime si ñoom parce que yenn posture ak yenn engagement yi ñu amoon ci yenn euh, lii nga jàpp na ñii ñu bëgg Sénégal lañ. Mhm. mais parfois da ngay dem ba après yow da ngay posé wu question ñii seen bëggu Sénégal gi ñu doon mos a wax ba ma xawoon ko gëm mais fan la leen mujjee jaar. ah jar na seetaat. fi sabilillah guys <laughs> <laughs> les vraiment ñu dimbali Sénégal dañu bëgg a avancer. mais day sonn rek nag day sonn parce que voilà nit ñi ñu ngi si beneen détail quoi le pays maintenant est devenu tellement sérieux que y a de ces détails nit ñi duñ ci attardé wu. quoi ji Ousmane ah. dafa yee gars yu bëri de. non dafa en réalité c'est ça le problème. boo fi nekkee di waaw picc sax bàyyi la fi waaw. wax dëgg yàlla gis nga Aliou Top bu dee bondé Ousmane Sonko biir assemblée nationale la rek <laughs> loolu jarte yàkkamti waaw. l'histoire retient ba fii ñu toog nii ba mu solee costume bu noir bi di njàpp njàpp ah. gars yi di ko di ko di ko ralentir mu nekk biir assemblée nationale di wax fulaam ñuy ruube hmm. te changé wul dara ci li muy wax ñoom ñuy jóg di génn salle bi ñu ah, continuer di mën li muy def c'est-à-dire Ousmane Sonko biir assemblée jarte yàkkamti les les heures seront assez longues pour pour pour pour pour pour euh, dina ñëw ah moi j'ai bien peur des des personnes qui sont là-bas et les voilà les heures pour ñoom ah, ñu war a toog yaakaar ne assemblée nationale te jóge nañu ci jamonoy Pod Marichou mhm. léegi jamonoy yaa ma ne bii ma ne la ah. yaa ngi dégg mais quand même il faut que le niveau là mu mu gën a élevé ki ki am cinq minutes di la waaj a rey hmm. mais kooku soo amee une heure deux heures trois heures quatre heures cinq heures ah, hmm. war laa bëcc ay idéem ak idéologie hmm. damay ragal bala moo génn assemblée bi ñoom ñëpp ñu ñëw jébbalu na Seydina Ousmane alors top, top, comment tu peux interpréter un peu cette décision la nomination bi nga xam ne euh, la République française moom la def euh, le général Kandé ah nommé ko au grade d'officier de de l'ordre euh, national de la Légion d'honneur c'est c'est Macron qui a fait cette nomination là au général Kandé alors <laughs> monsieur Macron xam nga monsieur Macron le français Macron su doon moom ay pexeem ak yéene mat na aujourd'hui le Sénégal révolution bi mu réussir du ko réussir mm-hmm. et aujourd'hui lépp lu nga xamante ni day permettre moom sëñ Macron moom wala ne la monsieur Macron <laughs> mën a jéem a foog ne lii pression la bu muy mën a def pour mën a am benn gain bu muy mën a am wala facilitel ko yenn mbir yi daf koy mën a def xam nga bu fekkee ni tout ce qui s'est passé ak le général Kandé. Mhm. gars yi di wax ko di tuddee coup d'état coup de nangam nangam nangam sangam. Mhm. alors pour benn état buy door a installé wu bu maîtriser wul ak yenn mbir yi. Mhm. mais bu fekkee un état comme la France dafa ñëw yéegal kooku ci yenn gratte yi xam nga muy commencé nag di installé wu yenn doute yi ak yenn peur yi ci yenn nit yi. bu fekkee ne c'est une stratégie pour dire aux gars eh ñëw leen kat vous avez intérêt ak man. sinon je maîtrise certains hommes yoo xamante ni ils maîtrisent l'armée ba nga xamante ni mën nañu bouleverser seen dëkk boobu noonu mhm. mais ils se trompent lourdement ils se trompent lourdement on a une armée républicaine mm. sénégalais bu nekk ci armée bi moo la gën a conscient gën a li loo mënti tabal doomu Sénégal nag on lui félicite mhm. mais moment bi mu choisir def ko mhm. c'est pas le bon et aujourd'hui li muy def nii lu dul gën a éloigner le de la France nekkul di ko def Et pense que c'est malhonnête ouais, très de recevoir le président de la République du mmh. Sénégal Bassirou jomma Diakhar fay bu nga xamante ni invité nga ko à un déjeuner ngeen lii mm-hmm. aussitôt après mais ngay woo benn général bu nga xamante ni après polémique yi bëri woon na lool ci moom pour jox ko benn nomination bi je pense que même bu nekkoon si sa xel mm. mais c'était pas le bon moment mmh. comme nag euh, ndeysaan bu sa xarit nekkee si ay jafe-jafe mm. ah parfois da nga koy bëgg di wallu te xam naa ne c'est la meilleure façon pour lui hmm. de venir en aide à son à son ami les l'ancien président du du Sénégal <laughs> mais en tout cas je n'apprécie pas hmm. c'est pas élégant pas hmm. élégant et en tant que je pense général Kandé aujourd'hui dafa waroon xaar Sénégal rendre ko ay honneur yóbbul ko ci yenn nomination yenn yi même bu fekkoon moom dafa am idée bi pour def ko après mu mën ci topp. tout à fait mais ni mu ko defee nii ñaaw na trop de. Hmm. Macron I don't know if you understand. Mm-hmm. Wolof or not but. what you are doing it's not good mais hmm. it's hmm. not uh, di du gentleman. non du and you are a president and then president of of France. Mm-hmm. dire dafa am yu nga xamante ni même bu dee cuwa cuwa les mm-hmm. mais dafa am temps nuñ boo ko war a defee. ñun aujourd'hui dañu bëgg cest à suñu nit yi ñu aj leen fi gën a kawee ci àdduna bi mais il faudra nga xam ne ñun le Sénégal moo ñu gënal nit tu Sénégal. Mm-hmm. xaw ma nan naa ko mën a expliquer pour nit ñi comprendre sa à dire yemale Sénégal ci ci ci kaw lenn donc intérêt général bi moom moo ëpp doole si ñun que ay distinction individuelle yooyu ngay def mais yow distinction individuelle yu France si benn nitu Sénégal mm-hmm. mais ça lui sert quoi ban njëriñ la ko amal il mais bu fekkoon Sénégal moo distingué waa jooju noonu mais mu baax mais bu fekkoon ne waa ji nekkul woon ci ay polémique bu fekkoon ne li fi xew xewu fii mais soo ko woowee sax à la limite nit ñi dañuy wax mais kii lu tax xaarul sax ba Sénégal décoré waa ji mu door ko décoré mais bonjour way xam nga yii yëpp. li ma lay wax rek li yëpp ci xeeti joué la ak ci xeeti chantage yi ma lay wax rek s'il pense que en geste bi acte bi mu teg ni bu yaakaaree ne il peut faire peur au Sénégalais et aux nouvelles autorités <laughs> il se trompe lourdement et ça c'est le résultat de tête à bi mu def ak Bassirou Diomaye fa mooy wane ne lam doon xaar ca boobu ah. amu ko amu ko. non xam tase naa ko am fulla tase naa ko am fayda lam bëggoon ak lam doon xaar gisu ko mun a xaaral je vais toujours jouer euh, à faire peur aux autorités di utiliser malheureusement un général un général ci suñu armée. mais Macron fait peur à qui? non il essaye il peut pas faire peur.